melokaan yu yërmande yàlla di wàcc mooy di wàcc nii rek nekk fexlul mudaarix di wàcc tanzilu rahma kon Serigne Touba bu ñu koy waxtaanee yërmande yàlla dootu wàcc ndax mooy a asaalixu saalixina ndax bu ñu xoolee ak njabootam ak ñi ko toppoon man cee tudd ki ñuy waxtaan tey te mooy Serigne Fallou doon ko mat ku sëkk ñëw ci ay saxaabaam man cee tudd as Cheikh Ibrahima Fall lamp Babul Muridina man ci tudd ak Cheikh Issa Diène man ci tudd maam Cheikh Anta man ci tudd maam Thierno ak mboolem ñi ci topp ñëpp ñëpp ñëpp ñooñu koo ci tudd saalix la waaye ki leen yéwee noonu kon mënees na ko tudd ak saalixu saalixina kon ñoom koo ci doon waxtaane yërmande yàlla day wàcc waaye sëriñ boo ko waxtaane yërmande yàlla day jóge ci wet gu noonu di wàcc loolu moo tax ñu bëggoon cee jaar ci fànn gi moomee alxuraan nga xam ne saaxir si rek ni mu firee alxuraan moom rek moo ni mën a firee alxuraan buñ demee ci suratu saba déedéet buñ demee ci histoire ndaw sos di balxiil te dëkkoon ci dëkk bi tudd saba ak Souleymane danañ ci fekk bi histoire bi demee ba ndaw si ñëw ci Souleymane ba maanaam bi leetar bi egsi ci ndaw si ba ndaw si laaj xalaat ci ñi ko waroon ci dag yi ba Souleymane ci boppam ba ndaw si ci boppam dag yi tontu ko lam leen waxaat mooy ci ak ragal Souleymane mooy daf leen ni innal muluka iza daxaloo qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillatan daani wa kasaalika yaf'aluun aay boobu Serigne Touba daa ji kilifa gu mag ci réew mi ñu nekk bokk feneen laaj ko aaya boobu naka nga koy firee ndax kooku dañ ko daan wax sëñ diw tafsir sëñ bi dañoo wax da ko njëkk laaj ni ko maanaam tafsir ji ñu lay dàkkaran da ngaa mën a firi alxuraan wala ci sa baay nga ko donte maanaam tafsir ji mu ni da koo man sëñ bi ne ko aaya bi nañ koy file mu ni ko innal ka mooy naka wuur ya isaa daxaloo xaritan bu ñu tàbbee ab dëkk afsaduha dañ koy yàq wa jaalu ñu def aizata ahliha ñu gënoon tedd dëkk ba as gën a torox maanaam dañuy jëloon ñu ci gën a tedd gën def leen ñu gën a torox yàq dëkk ba sëriñ bindi ni ko waa loola moom jamono jooja la woon waaye jamono jii nii xam nga dañoo wax ne alxuraan day àtt démb di àtt tey di àtt lii ñëw maanaam dafay àtt maadi ak mustaqbal ak xaadir mustaqbal ak xaadir kon kon lii lan lay lan lay war a àtt ci jamono ji ñuy dund ñun wax dëgg lool doon na ko àtte bee jàll waaye jamono ji gis naa ne day àtte leneen day fiir leneen waa ji déggu léegi sëñ bi ne ko dama lay wax ne innal muluka innal xasuuda naka xiñaan ya isa daqalu buñ tàbbee xariatan maanaam ay xalban buñ tàbbee ci ab xol afsaduha dañ yàq xol ba wa jaalo aizata ahliha mooy dañuy def li gënoon a tedd ci xol bi ñu def ko asiran mu gën a bon noon la iñaan di def ci xol noonu la ko fiiri la ci jamono jooju dafay tekk rek ni moomam alxuraan loolu dafay tekk ni sëriñ bi moomam alxuraan bu ñu xoolee aaya boobu suñu borom di wax ni allazina yunfiquuna fi sarraai wa darraai wal kaazimina al gaysa wal aafina an innaas wallahu yuhibbul muhsinin mooy di tagg ñi nga xamante ne dañu dundale seen alal ci bu ñàkk bu ñàkk amee bu metti métti amee ak bu yomb yomb amee sëriñ bi way na ci ay bayit firi ko nam na ko alxuraan indee lam yen hu ni lam yen hu ni boqulun la da darraay wa ma naxaa soxo fi saraay mu ni ak nay fa loru ga jubluwuma mooy bu ñàkk bu jafe-jafe amee itam damay joxe nii li ñuy wax soxu te mooy noxuk bakkan te suñu borom ni kuñ ko dogal ak taxe ñel ne la suñ tubaa nee loolu man jubluwuma bu ñëwee ci kas ma ak xays mooy nëbbu mer mu ni lam yen nii maanaam xaasabtu nafsiya ladal aadaai bi kasmi xaysi wa maxawta day mooy xisaab naa sama bakkan fan noon ya ci nëbbu mer ak te moom suñu borom faral na ma ràgge nii daal ni bi ka xam fawtu an jamii naas yi baadal jihaadi musibil adnaas daal ni ci yàlla laa jéggale mboolem noon yi ginnaaw ba ma jihaatee jihaat mi nga xam ne mooy demal tër ni bi yi mu indi yëpp wala afina naas ji mu mujj sax Sëriñ Tuubaa indiwaal na ko mooy bi ka afawtu an jamii naas loolu nii rek moom alxuraan moom gu wér ci képp laay waxee rek foofu jàmm yi ji wax nit ñi dañoo war a dañoo war a bég maanaam murid yi dañoo war a kontaan xam nga bu ñuy wax ci mbirum saahir mi itam kontaan suñu xel maanaam war naa dal ndax damay wax ni suñ daam mii bu jëloon un million di dem Dubaay di commerce mu ñëw ni ko mu bëgg ci bu ñëwee bénéfice un million muy deux millions xam nga commerçant wala commerçante lii problème mooy li li may jaay baa duma ko jënd ci période bii mu seer période bi ma ko bëgg jaay mu mu wàcc wala muy ñëw ci douane bi ñu téye ko mu am problème ni ma ci fayu seer du ma génnati wala mu lamb yàqu léegi nag suñu daam moom jël na un million di dem Dubaay ma ni ko damaa bëgg léegi boo ñëwee ñu xayma ko maanaam bu fekkee un deux millions nga ci bëgg am fay naa la deux millions yi léegi man léegi boo ñëwee rek marchandise bi danga ma koy jox kon ku ne xam na ne buy dem Dubaay ni muy yéegee ci avion bi ba na muy demee la muy jënd ak fi muy dal ba ni mu ñibbisee xelam day dal ndax xam na ne marchandise am am na ku koy jënd bu egsee ci njëggu mat sëkk te da koy fay bu egsee kon xalaatu ci problème yi waroon am Serigne Touba ab liggéeyam. ak moom ak nun murit yi noonu la demee hmm. ndax gis nañ ci téeréem bi tasawuri saxaan mu ne ministral baax yi mabi an maa kasat walay seenoo saqan asat nee na moo yàlla mi aji des jënd na ci moom njaay moo xam ne lëmbut daan ne ak texee di ak iñaanit jubluwu ko kon bu ñuy faral di waxtaan ni murit yi suñu xel war naa dal dafay tekki ni sëriñ bi boo amee lu muy jaay suñu borom jënd na ko ba noppi boo amee lu muy liggéey itam suñu borom commande na ko kii commerce nag li muy jaay ñu jënd ko li muy jënd ñu commande ko xelam day dal moo tax ngeen gis mu ni waqaaniyal baaxi bi subóora balaa ñuy egsi ci xàbbak ñaareel bi subóora ci boppam mooy lan alxuraan ni wa isaa ulqu minha makaanan dayiqan muqarranina daaw hunalika subóora laa tadoo al yawma subóora waaxidan wa doo subóoran kasira dafa am ay gaa bu ñu leen sànnee ca bërëb bu xat ba nee ni sànni dañuy wax ni wo wëfut ma lii maanaam suboora wëfut ma lii Sëriñ Tuubaa ni suboora ji suñu borom fegal na ma ko te ñooñu malaaka yi tax naa ne laata dox yow ma subooran waaxe leen tey bu leen wax benn yoon bu leen wax subooran benn yoon waaye wax leen ko ay di leen ko wax maanaam di leen ñaawal Sëriñ Tuubaa nee na suboora ji suñu borom fegal na ma ko mu doog daan ni nag tijaariti la day lan taboora yaxantu bi may yaxantu waxuma la la suñu borom jël ci moom waaye li li li li murid yi def ñoom maanaam lu suñu borom commande lu ñu jëfee ci moom suñu borom da koy jël ndax na ko loolu mooy tax nag seen xel dal te itam ba mu ko commandé daa duudul man li may fay sëñ daam ci 1 million yooyu ci 1 million yi muy 2 millions yi ndax moom boo ko ci fay 2 millions sëñ Tuubaa ci boppam dani yaquudu li bi lentihaa in samani la wax njëg ci boppam daa amul fu muy yem suñu borom daa amul lu mu koy fay mu yem foofa dani yaquudu li bi lentihaa in samani man kaana lii waliya safa samani ki ma nekkal te sellal sama jamono njëg may fay amut fu muy yem toujours damay fay ki ki ngay commerce nag ñu fay la commande liggéey kii te liñ lay fay it amut fu muy yem ku kon loolu dal xel dafa war a nangu rek ci xel nii ka koy def xelam war naa dal loolu mooy tax murid yi seen xel di dal kon dafay mel ni foofu rek waaw foofu lañuy ñuy daal di daaneel ndax wax dëgg gudd na waaye sëriñ bi moo demee noonu dañuy faral di wax léeg-léeg sax ñu araamal wax ba noppi te waxtaane wuñ ko moo tax ñu dugal ko ci moom mi waral lépp li tax may tëje fii nag may wax lii baati olof yi maam Seex waxoon ci wàllu xarit gi mën a waxtaan waxoon na nit melut ni mu waxe waaye ni mu jëfe la mel doomu ni mu waaye nam jëfe la mel amaa nit ki waxam rafet lool jëfam ñaaw lool kon moo tax mu naan nit ki melut ni mu waxe waaye nam jëfe la mel loolu mën naa tàbbi ci ak xarit ba tey kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi tuub auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi auzu bika min amasaati shayaatiin wa auzu bika rabbi an yahduruni laa hawla wala quwwata illaa billaahi al-aliyyil aziim xanaa dañuy sof rek ci kàddu yi nga xam ne dafay jàll ndax comme waxtu waa ngi dem <coughs> te li ñuy wax tamit kàddu yi cant la yoo xam ne mënta ñàkk ndax ni ñu mel ci kër gi ndax dañ fi doom di fi taalibe di fi surga di fi mag di fi rakk kon liñ ci mën a wax bari na waaye dañ ciy gàttal rek li nga xam ne dafa doxale suñu digganteeg njaboot gi di njabootu Cheikh Mouhamadou Yadaali Mbacke Falilou ak soxna Aji Amar ñu am mbégte bu yaatu goo xam ne fees na suñu xol ba mënuñu wax lépp ngir liñ doon sàkku ci ki nga xam ne dañ koy askanale Mbàkke ñu gis ko ci ñoom moo tax suñu xol fees ñu am mbégte am xel mu dal ba ñu mën a jotaay ci barab bi boobu ba léegi di leen ñaanal yàlla yal na yàlla yàggal seen taxawaay bu baax li ñuy sàkku ci yoonu sëriñ Tuubaa gi di seen maam ak seen waajur yal na leen yàlla kàttanal ba kenn du leen ci mën kenn du leen ci ëppale. waaw sëriñ Fallu dondul sëriñ Tuubaa dafay dafay sëriñ Tuubaa ak doon dañoo bokkut sëriñ Fallu dama wax dondul sëriñ Tuubaa dafay sëriñ Tuubaa dafa liggéeyal sëriñ Tuubaa ni ko ñëpp liggéeyale am bis sëriñ Tuubaa woote ci njaareem di togg ab laax moom sëriñ bi. bi mu ko toggee ba noppi mu jël ko jox ko mag ña fa teg teewoon ne leen xéewloo leen ko ñu xéewloo ko ba noppi mu ne dënn ab diir ba yàgg mu ne aka sama jëmm ji di ñaar ba jenn ji mën a liggéeyal jenn ji ngir booba suñu borom daf ko woon pay ku ni mu toll bi mu waxee loolu sëñ Fallou dafa defoon ku yeewu te am sëñ bi mu jege si ba jege si ko ne ko mbàkke damaa bëggoon ndegam sa jëmmam ji nga xemmeem muy xemmeemoon muy ñaar jënn jëmm ji nga rafaatale ma ko muy man mii sëñ Tuubaa ne ko defal naa la ko kon la Serigne Touba doon xemem ci moom la ko amee kon dondul Serigne Touba dafa doon Serigne Touba Xadim Rasul sëriñ Touba nag bëgg rek kanu ci war noonu yoonu murit ak fudul yoonu murit ku la gën a bëgg sëriñ Touba raw na la ci àdduna àllaaxira itam doo ko seen ndax lool li ciy joxe misaal mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina dafa am bis mu wax ku ñaan sëriñ Yaram Mbay ne ko Yaram Mbay mu ne ko Faal mu ne ko lu gaa yi wax mu ne ko nee nañ de da ñàkk bopp nee nañ da ngaa ñàkk bopp ndax nii nga toppe sëriñ tubaa jox ko sa tamuy jox ko sa lépp ta ngay doomi garmi wax ko bàggal mun leen a ah doom wax nañ dëgg wax nañ dëgg de Yaram Mbay aw ma bopp waaye bis a ngi ñëw boo xam ne ku am bopp di nga yanoo man nag sama bopp jox naa ko sëriñ Tuubaa ma yanoo dara loolu mooy yamal xiyaam ku joxutoon sëriñ Tuubaa sa loxo danañ la bàyyee say mbir te kuñ bàyyee say mbir yamal xiyaam bu ci sëriñ Tuubaa dugal loxoom doo jàll mukk looloo tax sëriñ mu jaw paxa itam ci ay bindam bi mi bi muy wax li am solo boobu ay naar dañ faa bëgg ñëw ne ko dañ lay jox ismullahil ansam ismullahil ansam boobu tur la woo xam ne ñëpp ko bëgg am mun leen soxlawuma ko ñu ne ko lu tax da nga dul wérde mu ne ah kay ñu ne ko kon wax ñu sa wérde noonu ndegem ismullahil ansam wérde wi ñëpp di wër bëggoo ko looy wérde mun leen bëgg sëñ Tuubaa mooy sama wérde daf ni leen mahabbatul abdil xadimi wérde yi waxi yàlla daa sil arsi xayru wirdi teg ca ne leen wird barke kese lay joxe te it mahabbatul abdil qadimi tuuti barakatun min barakatil muti ne leen bëgg sëñ Tuubaa moo may jox barke ci barke yi yàlla séddale kon ku bëgg sëriñ Tuubaa li yàlla séddale muy barke bu doon benn la itam da ci am ndax wolof dafa wax ni miraasum bàyyi jàmbur kuy wax ba am ca tubay sa miraasum bàyyi faw di nga am ku bëgg sëriñ Tuubaa lépp lu yàlla séddale muy saahir ak ci baatin da nga ci am sëriñ Mut Jaw Baxa tegaat ca booba dafa am naar yu ñëw sëñ Tuubaa di ko jaay si xam-xam biñ dikkee yam ci moom muy taalibu sëriñ bi ñu ne ko yow yaay kan mu wax leen boppam wax leen seen bopp ñoom naar yi soog leen wax sëriñ Tuubaa ndax def leen ahmadu jaw jawwun wa sayquhu sama wal ardu taxta al jawi fawqahu sama yéen yéen ay suuf si man maay euh, euh, ma ma man maay jaww ji ni jamu jaw ji tiime suuf si laay leen tiime ci yàlla Ahmadou Mbacke mi ngeen di seet nag di ko jaay si ab xam-xam na leen war ni mooy asamaan si tiim ku yàlla bind di tàng di tàng ci sa kaw di taw ci sa kaw te doo ko sañ a bañ wal ardu taxtal jawi fawqoo samaan ne leen dem leen moom ngeen di seet ñu ne ko mun leen dem leen waaye su ngeen yëgee ci moom na ngeen xam ne huwal xadimul fardu lladi laa yujmahu wala yutanna bal xayruhu yujmahu na ngeen xam ne kenn la bokkul ci genn kuréel ñu di ko limaale waaye ku moom nag ci kuréel gi nga bokk ci course bi course bi nag boo ci bokkee boo jëlee pee ci nga bokk boo jëlee ndaare ci nga bokk sëñ bi daa bokkul ci course bi ndax ndax dafa wax ni sabaxtu xayriya ilal jinaani maa nabiyil farashil adnaani sëñ bi nee na ku man ba àjjana maa la jiitu kenn laa langal mu yent bi sallallahu laa langal dox te langub sutura la la lay xamal ni mooy boo demee ba ca kanam ci ay mbindam da nga gis fu mu bind ne sayyarani llahu fawqa jamii al anbiyaai wal mursalina yàlla mujj na ma yëkkati ba teg ma ci kaw mbooleem lan bi yàqu yi ak yonent yi bi mu waxee loolu am na mag mu jege si moom ne ko yonent yi dañoo yàq rasulullaay ci la bokk mu ne ci ñi ma jiitu la bokk ñi ma tiim moom ci la bokk kon Serigne Touba lu tax mu mën a wax loolu da dul nit du jinne du malaaka bokk ci kainaatullaahi mooy mi fi yàlla yëpp sëñ bi bokk ci li ko sëñ bay jaaxate wax moom la daf ni ko doo nit te doo jinne te doo malaaka doo kainaatullaahi doo muusaaka sëñ bay jaxat ne ko niru nga yàlla aw doxin niroog yeneen bi aw defin deesu la xam deesu la miin yàlla nga daal tey niru nit foofu la sëriñ bi nekk gis nga yi ñuy wax yëpp yëpp yëpp li am solo mooy xam ni sëñ Tuubaa rek a fi nekk li am solo mooy xam ni sëriñ Tuubaa kenn rek la li am solo mooy xam ni lu baax fu mu nekk ci àdduna ku ko mën di yor sëriñ Tuubaa la ko jox li am solo mooy xam ni lu baax fu mu nekk bu sëñ Tuubaa génnee wàllam tuus du ca des ndax yàlla mayam yi ñoo fi nekk ak garaatam yi ak yool yi muy fayee jaam yi sëñ Tuubaa ne ni yool bi yàlla war a faye fayee mbindéef yëpp jaamu naa yàlla ba suñu borom yëkkati ko fay ma ko genn fay waktub liyal a wa safaa fi kulli shay'in wakfinil jafaa ñu nekk ku yàlla bëgg a fayati kon nu muy def mu ne daf may laaj ci lim ma fayoon yëkkati ci fay ko loolu tax ma waxoon sëñ ma sàmba ne ko jaamu yàlla gu ma dëndeeru suñu borom du fay koo ko ndax li ñu war a fayee jaam yëpp ngi sama loxo maqaama yi yàlla war a takkal góor yàlla yi sëriñ Tuubaa nee na damay jaamu yàlla bu suñu borom dajalee maqaama yëpp jox ma ko waktub liyal yawma maqaamaati rijaal bilaa tazalzulin wa basir bi najaal kon boo jaamoon yàlla boo yegg fañ la war a takkaleeb garaat tayit joxoo sëriñ Tuubaa loxo doo takk benn garaat ndax garaat yëpp ngi ci loxoom la ci des mooy may yàlla yi may yi sëñ Tuubaa ne wahaabu habliya mawaahibul kabir waqun mubaarisiya fawran lil qubur waxaan xustu mawaahibal ilaahi turra walil jinaan qaada umri birra sëñ Tuubaa nee na mboole may yàlla yëpp a ngi ci sama loxo mboole may yàlla yi dara des ko daan ni xaw ma nu ma toll fi yéen waaye boo demee fa yàlla moom ponkal naa fa wa indaka jaal nii jalil al qadri dunya wa uxra wa tadawir badri kon sëriñ bi moom xam nañ ni kenn du moom koo xam ni adduna ba mu daj mennum sëriñ Tuubaa moo ci mësta def la ko astaghfirullah di fekk yonent bi boo jàng histoire am wax nañ la ne defoon na bàkkar sàngam ci niñ ko mën a tudde ci ñoom ci yow ma asura ci lañ jéggal yunus ci lañ jéggal aadama ci lañ jéggal lii sëñ Tuubaa mës ta def lu muy tuub loolu tax sañ bay jaxate ne ko yaa set weles musulaa dox sax fu taq lu bon setal nu ngir yàlla nun ñuy taq bay tuubi ahmadu defoo lu bon musulaa def benn bis lu warul te waa judul yow def na si lëf lu muy tuubi kenn mësula jox yàlla àqam benn bis ndara yow giñ naa ni giñ naa ni wax ji soxlawul tuubi yaa xëy ni doom ngiru yeneen ba tey wéy ba yegg rikk nga del si yóbbu kuy tuubi ahmadu moo tax ku wuteete ak yow kooku am tulu yow mbooleem ku jug mooy la tey moo def la jar tuubi gis nga li jar tuub mooy sëriñ tubaa mii yàlla teg ko fi ne moom la ngay jéem a fegg fegg la ka làng-làng la ka xàll aw yoon aka sëriñ tubaa moom ku jëm ca yàlla teggi ko lëtti li nga waxoon rek daa ànd ak doom ñu nekk ci àll bi ba yàgg doom ji ne ko yaay xanaa danoo réer mu ne ko réeruñu dañoo jëmut fenn rek mooy ki jëm ci yàlla te teggi sëriñ tubaa ndax koo xam ne daf ni aataani allahu baabahu walaa yamuru bil baabi illa bi mashaati yàlla bunt ba jëm ci moom maa taxaw kenn du fa du ma romb jàll ci lu sama coobare kon lépp sëriñ bi liñ koy daanee mooy sëriñ fa liilu mbakke mi nga xam ni am na naaru gànnaar bu ko wax ni ko mboolem ñi baax ñëpp buñ jëloon seen bu baax teg ci balance jël sa genn bu baax teg ci balance mu wat seeni balance damat fadaila dawil fadaili li fadlihi fafaaxa kulla fadili loolu tax waykat wa ne saqaltu bihi fikri wa saqaltu bihi qalbi wa nutqi wa fikrati wa lawxi wa qirtaasi fa adhal masaahifi daf ni ko sama xol sama xalaat sama làmmiñ sama këyit ak sama daa dootul jëm ci ku dul yow yow rek yaay doonati samay téere ñu ne ko lu tax nga def loolu mu ne ko xadamta xadiimal Mustafa xidmatan wana akaabira anha min jamiihil maarifi yow liggéeyal nga Sëriñ Tuubaa liggéey boo xam ne mboolem ñi ko doon liggéeyal lottu nañ ci liggéeyal ko liggéeyal bu toog bu tol noonu ñu ne ko waaw lu mu ca jëlee moom Sëriñ Falilu mu ne maqaamuka qad faaqa al maqaamaati kulliha wa wasfuka aya baadahu kulla waasifi sa maqaama kawe na mboolem maqaama yëpp yëpp yëpp yëpp saw meloo nag moom ñëpp lott nañ ci yow Sëriñ Falilu dama wax léegi sëriñ Falilu mooy sëriñ Touba mooy sëriñ Touba waxuma moo dond sëriñ Touba mooy sëriñ Touba loo tax waykat wa ne ko chahru ramadana ma jublu kooka fii laylatil jumaati kookaay kooka am naa yaqin Cheikh Fallou moo di kooka tey ak ëllëg te kooka moom di kooka rafet na am mbay bay na toolub kooka kooka xëyal kooka mu gontal kooka la def sañ-sañ war a jiboog cay kooka baax gaa dojoon jamono naw naa kooka rahmatuna fadilu naa cay kooka salla alayhi llaahu barkeb kooka ma dim fa ay jikkoom yu néew cay kooka baax gaa dojoon jamono naw naw naa kooka nañ xam ne Cheikh Bamba ñëwaat di kooka Cheikh Moustapha di kooka falluy kooka wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aousu salaatu wassalaamu ala haadil amin sayidina wa mawlaana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ila yawmi ddin kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuuminuuna billah yéen taalibe Cheikhul Xadim yi nga xam ne yéen teew ci ci ci fii ñoo ñuy liggéeyal Cheikh Mouhamadul Fadilu maa ngi leen di sant bu baax di leen ndokkeel ci guddi gi nga xam ne dañ ko woote di bisub diine bisub islaam yi ñëpp ngeen teew ci di jiital ci nuyoo boobu ak sant ak ak ziyaara sunu sëriñ sunu yaakaar tey ak àdduna tey ak àdduna ak alaaxira muy Ahmadu Yadaali Fadilu di ko ziyaar bu baax di ko ñaanal sunu borom guddal aw fanam ndax bu aw fanam guddee rek diine dana am ndam yoonu murit dana am ndam ba ca des di jiital ci nuyoo bi it ba tey sunu mag sunu sëriñ alxaaji Muhammadul Fadil waaye di ko sant bu baax it teete gi ñu teete di ñu teg ci yoonu islaam waaye lépp rekk ñu tàmbalee ci moom ci di ko roy ci lépp diine ak lépp yoonu murit mu yoonu si Serigne Touba yi kon nag damay wax ci tuuti Cheikh Mouhamadul Fadilu bala ma wax leen ndax Serigne Fallou daa taxawoon ne da ngeen ne sàmba mën kanamam waaye waaye du waaye du waaye ki daa mënul daa mënul ginnaawam mu ne de seen sàmb mi de mën na kanamam mën na gannaawam loolu nag moom daa tegtal lu bëree loo xam ne eh, daa kii lool ba ko bëgg a fiiri sax danga ngay yéemu ci yàlla dañoo dimbali ci zahir ak baatin moo tax mu ne sàmba da ngeen ne sàmba mën na kanamam waaye seen sàmba mii de man na kanam mën na ginnaawam dañoo dimbali ci zahir mooy Touba gi jumaa ji nga xam ne sëriñ Touba ko rëdd moo moo ñu ko eggaleel ba ñu mën cee ba ñu mën cee nekk di ci liggéeyal Seexul Sëñ Tuubaa bi ci desit Touba courant moo ko fi njëkk indi bi bi ci bi ci des ndox mi moo ko njëkk indi Touba lépp loo xamante si ni yooyu yoonu murit ñu ngi koy tiitaroo rek mooy ki ko fi njëkk a def ba it ba ci ba uh, suñu sang yu baax yëpp it nekk nekk ca loola kon nag ñun amuñ ak fayam. bi ci njëkkaat mooy waaye bi ñu bi ñu loolu mooy zahir si defal nañu lu rëy su ma toogoon dugalim du fi jógee waaye bi nga xam ne moo ci des ku ko mës a soxla sëñ Fallou da dana la ko saafaral loolu moom kenn ku nekk doy nga ci ab seede ba ca gën a yéeme muy mu ne nu duma dem bàyyi leen dimbali naa leen zahir ak ci baatin moo xam seenu seen liggéey la seenu koom-koom la muy marché Ocass bii moo ko fi def ak su ma su ma dañu damay tënk rek ndax sëñ Fallou warta toog may yëkkati ay kàddu lépp moom moo la ko defal ci zahir waaye mu ne duma dem nag bàyyi leen mooy su ngeen jaaxlee yéen mbindéef yi da ngeen ma woo ma ma wuyu leen su ngeen amee naqar ma ànd ko yéen kon nag alxaaji Mouhamadul Fadilu mënuñ koo mënuñ koo fa fay te lépp ak bëggam Sëriñ Tuubaa moo ko moo ko jox moo taxoon mu daa wax ca bëyitam naan mahabbatu cheyqi fi sirrin wa ilaani ajirat fadaila fi sirrin wa ilaani mu ne bëgg Sëriñ Tuubaa ci biir ak ci biti day indi ay xéewal ci biir ak ci biti mu ne xubbi lahu dëhëra qad afna dumuuye id xubbi jami alwara la saka ansaani mu ne de bëgg si bëgg Sëñ Tuubaa daa jeexal samay ronkoñ ba mujj gi bëgg bëggoon mbindee sax dama ko fàtte ngir bëgg nga bëgg si Sëñ Tuubaa te it bu leen fàtte ne daana wax naan saf ku dumuuy li xubbil xadiimi fardan daana wax naan sotti ay ronkoñ ngir bëgg Sëñ Tuubaa man alxaaji Muhammadul Fadilu uh, farata laa ko def kon nag kuñ bu ñu amee ku mel noonu war a topp ci ay tànkam war a gën a góorgóorlu ab soññee bu rëy la boo xam ne war nañoo taxawaat bu baax ci diine gën a jàppaat ci islaam ndax islam mooy sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa mooy islaam kenn mënu koo tàggale kon nag yéen taalibi sëriñ Tuubaa yi nañu gën a tënkuwaat gën a góorluwaat gën a toqowaat ak diine moom lañu suñu kilifa yu baax yi digal sëriñ Sidi Muxtaar yàlla na ko suñu borom yàggal moom la ñu digal te it ñu tànkoo takkowaat bu baax nangoo nekk ci ginnaawam bu nu ko defee rek liñ bëgg lépp danañ ko am si sëriñ Fallou moom mënuma wax ci moom lu bari ndax day koo xam ne ku yéeme la waaye yéen rek moom sax wees na di dugg sant kenn xamut luñ koy wax ndax lépp da ko def waaye di sant mbokki taalibe yi nga xam ne ñëw nañ bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ñëw jàpp ci guddi gi ba bañ ba am ci liñ bëgg am ci ba daje ci ngërëm ak Sëriñ Fàllu kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di jiital ci sant bi sunu mbokki naar yi nga xam ni dañ fee teew ndax dañ aqrabul ula la gën a jege rek moo gën a moo gën moo gën a ni ko waxatee xuma moo gën a kii waaw a yey la gën a jege rek moo loolu moom ñu ngi leen di sant bu baax ndax euh, Sëriñ Tuubaa dane si si ndax euh, Alxuraan dane lawaluuna min al muhajirin wal ansaar wallazina tabahuhum bi isanin li damay fi damay kii rek damay leeral rek sa sant gi même buñ buñ nekkutoon ay mbokk dañ ko war war naa koo def sama diggante ak yéen muy li nga xam ne Serigne Touba dañ ci da ko ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ànd ak Serigne Touba wallazina tabahum bi isaan yéen toppoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ak rafetal Serigne Touba it su sunu borom ummatal na ma ay ansaar te loolu mooy yéen ñii rek. kon nag loolu ñun mën li ñàkk ñàkk mën li ñàkk faw ñu euh, faw ñu sant leen kon nag ñu ngi leen sant bu baax man nag damaa mënta wax la la ñu ko waxte la Moussa waxoon rek ndax daan ne yow suñu borom mu dul ma apporte borom ndax damaa mënta wax naan euh, ba mu suñu borom mujj ko wutal ko yonte yàlla mujj ko apporte borom kooku nag moo gënoon leer làmmiñ moo tax mënut a wax waaye nag damay wax kàddu kàddu yoo xamante si ne daa nekk sama xol waaye faaw ma génn ko mbokki taalibe yi nga xam ne nag ñëpp ànd nañu liggéey bi ba liggéey bi e-, egsi fii ñu ngi leen sant bu baax moo xam ñi nekk ñi ñi nekk bitim réew ñoom ñëpp ñu ngi leen sant baax xam na dañ koy dañ koy tënk foofu rek te it di sant suñ sama nijaay sama nijaay sama nijaay yi nga xam ni ñoo ñëw ànd ñun lépp ba lépp egg sëriñ Bayit Amar sëriñ May Amar ak mboolem ñi nekk ñi nekk birim réew duñ tudd jëru ko sax ndax ñoom waruma yëkkati sama kàddu sax di leen di sant ndax lépp sëñ Fallou lañ ko defar te it sëñ Fallou dañu egg la foo xam ne yàq dafa egg insha allahu te di sant uh, ñoom uh, Cheikh Bass mi nekk mi fi toog. di sëtub siñ siñ Basiiru mam Mbàkke ma maa ngi lay maa ngi lay sant bu baax tey di sant si Cheikh Bass Cheikh Bass mi it maa ngi koy sant si sant bu baax dama maa mënta wax nag dama mënta wax maa ngi koy jégalu bu baax a baax kon nag ñu jox alxaaji Mamadou Fadilou mu yëkke fe mu eggale yi yéene yi nga xam ne bëggoon nañ kaa wax alhamdulilahi karimil waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baxda mbokk jullit ji mbokk taalibe yi Seexunal Xadiim ginnaaw bi ñu santee yàlla suñu borom julli ci Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sant Seexul Xadiim ñoo ngi nuyu mbokk jullit yëpp ak mbokk taalibe yi fu ak fu ñu mën nekk ci àdduna di loon ndokkeel ci bis bi nga xam ne li ci njëkk mooy bisub laylatul isra wal mihraj ba yàlla jëlee ab yonenteem sallallahu alayhi wa alihi woo ko jox ko lam koy jox am loo ci xam ne xamees na ko am loo ci xam ne diggante ak moom la waaye ñu amaat ci ñun ak jagoo boo xam ni mooy bisub gane àdduna Cheikh du Fadal ñoo ngi ñaan yàlla yàlla dolli ay ngërëmam gën a dolli ay leeram ci barkab Seexul Xadiim ñoo ngi sant yi nag yaakaar naa li ñu fi li ñu faroon wax lépp daanaka wax nañ ko daanaka kàddu yi moom kàddu yi sant rek la ndax li am solo ci waxtaan wi rek mooy kenn ku ne doonte benn baat nga fiy dégg rek ngir jëriñoo ko rek loolu moo ci am solo kon ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñépp kàddu yi nag du du du bëri ñaari baat rek lay lay nekk yoo xam ni ki nga xam ne moo ñu fi moo ñu tax ñu ñu ñu teew fi tey ñu teew fi nii te suñu yaakaar tey ëllëg Cheikh Mouhamadou Fadal am na ñett ñett yu waxoon ne moo ko gënal ci àdduna bit njëkk mooy dane woon bisub guddi bii bokk na ci yi ko gënal ci àdduna ndax bis bi la ko yàlla boolee ci Serigne Touba ba mën koo liggéeyal bi ci topp mooy nee na bi mu jotee ci caabi ci bi mu liggéey jumaa yi Touba ji ba mu àgg jot ci caabi ji nee na boobu mooy ñaareel bi ko gën a neex ci àdduna ñetteel bi nag te mu nekk loo xam ne ñun mën nañ war nañ ko mën a roy nee na ba mu jaayee ak njureelam ci Serigne Touba jënd ko ak taalibe ginnaaw bi mësul def wala mu wax loo xam ni day xajamal wala muy tirimal njureel googu kon ñun foofu rek lañu war a nekk ndegam dañoo jaay suñu lépp jox ko Sëriñ Tuubaa nañu góorgóorlu ci topp yàlla topp li mu digle bàyyi li mu tere Sëriñ Tuubaa nag waxoon na ñaari bay joo xam ne danaa ko fàttali rek ngir tëjee ko jaraay bi ndax yaakaar naa fii ñi fi daje mooy ñenn ñi ay góor lañ ñenn ñi ay jigéen lañ te jotaay yu mel nii bari na waaye yaakaar naa bii nii dina wuuteeg jotaay yi nga xam ne moom la naan dem ci yu bëree bëri ndax liñ fi waxtaan am na solo lool jotaay bi murite na lool gis nga sëriñ bi bu daan woote di wax di waxtaan ak taalibe yi góor ñi ak jigéen ñi daleen daan séparé daraan daraan der sax mu jël luy doxale seen diggante mu jël uh, góor ñi lay ne jël jigéen tegaleen ne def loo xam ne mooy dox ci seen diggante ñun nag xam nga ne loolu moom dañ euh, dinañ ko tëlee ndax mënuñ ko waaye ñu góor góor rek ndax ci côté jigéen ñi am na lu ci Sëriñ Tuubaa waxoon loo xam ne dinaa ko fàttali daa waxoon ne wanantanaa li diina xataa tastur yi gis ma ki yaa sëy na bu bi taxamuri dane nit ki du am diina mukk ci jigéen lay waxal li fi yéeg muurul aw yaramam ba mu daj kàpp loolu waxe Sëriñ la beneen bi ci ci góor ñi Sëriñ Tuubaa waxoon na ci téereem mboobu muy tuddee tasawudu subaan ne yaa ayoo subaan in xiftum xajal faxaddimu taxalluman xalaa xamal nee woon na yéen ba yéen waxambaane yi mooy ñi nga xam ni ah, maanaam yëguñ ci màggat waaye paas nañ tuuti gone mu ne bu ngeen ragalee gàcc jëf ju ngeen di mën di def na ngeen ci jiital ak xam lu muy na ngeen di jàng ba noppi soog a jëf ñaar yooyu rek yaakaar naa moo moo jaraat ndax fii góor ji góor fi nekk ak jigéen ñoo ngi ñaan yàlla nag sant nañ bu baax ñëpp mun ñoo tudd seen tur waaye lii ci barkeb guddi gii yaakaar naa Serigne Fallou gis na ko Serigne tubaa gis na ko yàlla na ko yàlla nangu joole jotale yool bi ci Cheikh Mouhamadou Fadal mu ci Cheikh Mouhamadou Fadal sant nañ bu baax ñoo ngi ñaan yàlla ci barkeb Serigne Touba. ñu teewe fi ay jotaay yu bëree bëree bëri bëri ca kenn ba ca kenn bañ a bañ a manqué ci barkeb Seexul Xadiim ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh